yow sëriñ Mbàkke yow sëriñ Mbàkke yow doo toon te doo fayu yow yaa baax ni ngay doxale wexoo noyoo soxoroo tayit jafewoo doo war tayit jafewoo yaa ko doomaas ba ñuy tëkkale be xoono yoo soxoroo doo warte yit jafoo ñàkko xorom ñaawloo doomaas ba ñuy tëkkale gaynde la jur gu lewet te la fàdd lu dul ite ki soxlaa ki jaaxle kooka moo darale moo tax nga mel ni nga mel gi nuru woo ko may jikkoom yu rëy yi nga lamboo boole koog bari le jàmbaari lislaam nga gis góor munta yaatu lewet yaakaari ñëpp nga ndax doo gantu doo gënale lii tax nga xëy jiitu mbooleem nit mu baax ñi fi gën tey ñëpp a ne fi yow ñoo yay ni yaa doonay tukkal moo di daal ko yóbbu ngaax ya ñu gis yaa boon ñi baax ñi bon boon ñi man ñi tële bokk ak jaambur fi yow ku ñëw nga teral ab tabbu woomal nga doo jeexal te doo dikkile yow yaa di ab sang dis gor xam teraanga te xër Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naar ya ngay àggale yaa yaatu yaa mën a yaa noppi yaa bari jom Cheikh Moustapha togg jox Cheikh jox la ngay dënale sama jitu ko lolé muy bañ ay xalaam na dem bataay ya ya ba gis jumaam ja jall pale yalla ko jiital ngir xey ko fat te ko ca kaw mo jitu mo mané jité gor né moy xetile do bay lo lañ may wax maay njaat maay njaatigal barab bi 94 ba légui ma fi nek booba taif amul godron bo taif amul godron waaw barab bi nga may njëkk a laaj nu mu tudd ba noppi daaruk Cheikh Moustapha la tudd waaw màggal màggal gi moom alhamdulilah rabbil alamin ku mu fi fekk war ngaa sant ñoo ngi ñaanal ñu fekkoon mm, daaw te fekku leen fi ren ji waaye màggal gi moom lépp jaar na ci yoon nii nga ko gisee rek foo jaar la wax rek lañ la wax amul xuloo amul xeex amul saagante waaxu ñëw dugg ndànk ci oto yi màggali ci jàmm dellu si jàmm doo dégg benn bruit waaw waaw. nan a ñu ngi jalaw jalaw yi dem ak ñëw moom waaye jàmm rek ñëpp ci jàmm la ñuy dox. déet paas bi yokkuñu ko moom duma ko nangu. wate yi daa yëpp 700 moom la ñuy yëpp ñi yëpp ñi yëpp euh, téeméer téeméer la ñuy yëpp téeméer la ñuy am na nag ñoo xamante ne ñoom ay bourgeois lañ bu ñu ñëwee dañuy bëgg noobalewu jël oto bu rafet fay ko ñeent nit euh, kenn ku ne ñaar téeméer ñooñu man dugguma ca ñoom xooluma leen sax man kuy kuy teg piscine ci 700 yi wala téeméer bi moom du du ma du ma la boole samay ñoñ waaw client yi bari nañu moom bari nañ macha allah waaw suba itam bu dikkee subaay raw lii suba man sama bopp da moom danañ julli kii ma door a wàcc man ndax man xaalis rek laa bëgg ni nga may gis nii. danañ wàññi moom danañ wàññi tuuti ba subaati. lañ jaay Touba. waa waa am ambiance moom sant yàlla ren dem fekkee nañ ko parce que ñun moom ay sëfaram quoi mais transport moom jamono yi toll métti na métti goo xam ne moom li ñuy jànkonteel si télé bi ñu ne yàlla rek ñoo xam. waaw parce que daanaka oto yi moom dara nekkatu si mais sëfaram daanaka moomul xëy toog quoi su toro la ñuy wéy si oto yi rek mais dara amatu si. parce que oto yi léegi métti na métti goo xam ne daal mënee su ko wax daanaka lu si ëpp bu ñu nekkee Dakar nii sax. màggal gi paas ko parce que paas bi 500 la tey 500 baax na parce que bu ñu yebee nii 500 dem suñ dee ñëw dañuy yoru dañuy yor ñëw ko quoi looloo tax ñu def ko 500 mais xam nga tamit loolu xew. non afa am màggal gi fii yaana est-ce que du 400 ñun na xam nga ñu faral di fii man biis laa yor quoi sóoru bis la daanaka. waaw mais ñu ngi sant yàlla waaw mi dox bu baax a baax ñu sant bu baax a baax parce que fekk nañ ko rek sant yàlla bu baax a baax. waaw soxna sa Diouf. may laaj ko ma sopp soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di taalibe sëñ Bamba di dongob Cheikh Moudou Moustapha xanaa sant yàlla rek bi nu ko fekkee ay ati at fekkewaat ko ren sant yàlla rek te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. gis noo ngi sant yàlla ba ba tey rek ndax li lépp sant yàlla la ku ne gis nga ci sa bopp. sëñ Touba dafa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am moo tax ñu di ci gis suñ bopp tey yàkkamtu ñu buñ sañoon sax maanaam bu ñu amee ñetti weer weer wa ca toppaat di màggalug Taïf bu nu sañoon noonu lay rawantee ndax ñoo ngi ciy sant. ñoo ngi ciy gis suñu bopp ñoo ngi ciy jaamu yàlla ndax liggéey jaamu yàlla la waa barki sëriñ Touba te sëñ Bamba lépp la waay jëf ci moom rek barki yaa rasulilaay boo doxee deux pas rek xam ne jëf nga ci sëñ Bamba te dinañ ci liggéey jariñu danañ ci liggéey addiya danañ ci sant sëriñ Touba danañ ci sant suñu borom gis ci suñu bopp waa waaw. Fallou Seck. alhamdulilah di sant yàlla bu baax di sant sëriñ bi di ñaan ñu yàgg fi te wér. te yàgg fekke màggal gi ci barke Serigne Fallou alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina fii laay nekk ci gaal bi safoor la waaye alhamdulilah bu baax kay tubaarkàlla kay moom moo ngi sant fa yi yépp kay tubaarkàlla waaw màggal gaa ngi dox bu baax neex lool di sant suñ mbàkke soxna loo borom tey fa bay laa di tudd Lumbal Keli naaj taay màggal tay bi daal moom da dëgg yàlla alhamdulilah nit ñi ngi ñëw waaye ñu daal bis yee ñu yàqal bis sëfoor la waaw mi ngi dox ñun fii ñun njaga njaay yi dong ñoo fi daan ak muus yi waaye fi nii ñun bis yee ñu ko yàqal te ñoom pour ma dem. dañuy yàq rang ñun nak bu ñu ñëwee dañuy daa rang normal léegi ñom fu ñëw dañ dañuy yàqal. waaw moom kon ñëppay ñëw mom kay mom nañ tolorante rek néna leen bu ci kenn ñaaw benn bis la ñaari fan rek mu jeex. ñi ngi sant bu baax alhamdullilah fekke won nañ ko daw fekke ko ren kon dañuy ñaan yàlla gën ko fekke ci ah, ak salam daal. maam Thierno Ndiaye laa tudd. wa chauffeur la waaw. ambiance bi moom macha allah neex rek. kilaay bëri na. xaalis bi bëri na am na jàmm noo yokkuñu paas ñun moom fi daw paas bi 700 francs la ñu ngi ci gis suñ bopp ñu ngi ci am cëppaa cëpp kay macha allah mënoo ci dara xaay bi dafa bëri macha allah ñun fi la daw am nañ fi 15 ans fii la ñuy daw Taïf Touba man fi laay daw paas bi 700 la amul yokk amul waañ di dimbali client yi macha allah cëppaa cëpp laa lay wax laa yor man.